auzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ci yenn yoo xam ni dafay bokk ci eh, sunuy sunu diine di lislaam eh, ñu ngi leen ci sant waaye ñu ngi jiital ci cant gi eh, a cheikh mohamadul murtada wala cheikh mohamadul muntaqa di alxalifatul aam li tariqati al muridiya di ko ñaanal yàlla gudd fan lool ak wér eh, gannaaw loolu it ñu ngi nuyu kilifa yépp nga xam ni ñooy kilifa yoon wi eh, di sàkku ci ñoom ñaan saa su ne ndax ci seenu barkeeg seenu taxawoog seenu saytu ci la jataay yu mel nii sosoo waaye ñu continuer ba tey eh, jataay yi nag comme ni ñu koy faral di waxe rek jataayu fàttalante la waaye jataayu gaaral la lenn ci loo xam ni dafa soxal jullit bi ci diineem eh, mawduu jataayu tey bii nag dafa yaaju ci ñaar yu am solo euh, ci lislaam mu doon ñaar yoo xam ni benn bu ci nekk dafa am benn ponk buñ ko bootal ci ponki lislaam yi euh, ndax bu fekkee ni zakatul fitre la mi ngi bootu ci ginnaawu zakatul maal mi nga xam ni ponk la ci ponk waaye bu fekkee ni salaatul iidayni la it mi ngi bootu ci beneen ponk di ponkub julli mi nga xam ni it dafa bokk ci ponki lislaam kon it mawdu daan na am solo lool waaye mawdu bi it desut gannaaw ci am solo ndax ñaar ya muy wax ñaar yooya yépp dafa bokk ci euh, loo xam ni bu dut ponk yi waaye bootu na ci ay ponk bu dut euh, yegg ci farata ni faratay julleeg azaka yit waaye dafa mujje doonub shiaar goo xam ni tey ko ci bàyyi ko ab dëkk bu ko tey bañ a julli ci iit ci teyeef wala ñëpp dëppoo ne asakay wala zakatul fitre asakay muurum koor am na ay atte yoo xam ni buurum réew ma sañ na koo teg ci kaw waa dëkk booba kon dëgg la yàgguñu ci dooni ponk waaye nag chiaar la muy luy màndargaal di jëmmal lislaam ci dëkk bu mu ne eh, ba ci jëkk nag di zakatul fitre asakay muurum koor danañ ko tuddee ba tey sadaqatul fitr mooy saraxub muurum koor eh, mu doon loo xam ni wala mu doon ndigal loo xam ni daa jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, jege lool ak farata ba tax am na ñu ne farata la dinañ ci ñëw waaye ci taarif ko mooy définir ko xamle mooy lan boroom xam-xam yi surtout ibnu arafa ci xuduudam ya mu nga cay wax ni zakatul fitri day fi l urfi sharci ictaau muslimin faqirin li quuti yowmi lfitri saaan min xaalibi lquuti aw juzi mu ne zakatul fitri di asakay murum koor buñ koy définir buñ la bëggee gaaral xamal la mooy lan nee na mooy nga jox ab cër eh, ab jullit nga joxub jullit boo xam ni jullit bu ñàkk la jox ko lu mu mën a dunde ci benn bis waaye jox ga it nga fexe mu tombeeg bisu korite ga la nga ko jox la waa réew moomu wala waa dëkk boobu wala waa waa waa gox boobu di dunde moom noonu la taarife murum koor kon murum koor lañu ñu cay dégg ci taarif boobu mooy lu ñuy yëkkati la ab jullit a koy yëkkati yaa xam ku doon woor ci weer wi la wala daa am ngànt ba woorul waaye daal ab jullit cib jullit lay jóge jëm cib jullit ni moom këmu jëm ci moom nag daa war a melowoo ak ñàkk la nga koy joxit daa war a doon lu muy dunde ci bisu korite ga na mu war a toll it day war a tolloog saa wala xaajub saa ci loo xam ni moom la waa gox boobu di dunde kon yooya mooy taarif bi ko ibnu arafa taarife moom zakatul fitre ko mooy ni ndax korite moo tax mu war dañ koo waral te bañ koo waral korite gi moo tax moo tax ñu tuddee ko zakatul fitr eh, bu dee nag luy àtteem ban poids la yor ci sharia eh, la shakka ni zakatul fitr dañu ko yoonal ngir mu raxas laabal aji woor ja walla jullit wi nga xam ni dafa fekke woor weeru koor te am ngànt lu tax woorul laabal ko laabal kële ci amaana ay xalal yoo xam ni tàbbi na ci biir kooram xalal mooy ay sikk yu sew yoo xam ni yàqul koor waaye nag mën naa am sax bàyyiwu ca xel waaye ngir setal yooya raxas ko ba mu set kooka loolu moo tax ñu yoonal zakatul fitr yonent bi moo wax ci xadis boo xam ni abu daawuda moo ko solo jële ci ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na zakatul fitri tuhratun lilsaaimi min allaxwi wa rafath mu ne asakay murum koor dana laabal aji woor ji ci amaana ay mbóorant ak ay caaxaan ak ay rëcc rëccël yoo xam ni da koo dal ci biir koor gi amaana sax du ko yëg kon loola mooy wane ni zakatul fitre dañ ko yoonal mu bokk ci lislaam bokk it ci sha'air yi bu fekkee ni e, xikma wala xereñte bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax sunu borom digle ko mooy ignaau lfaqi fuqaraai an suaali nnaasi fi yowmi alciid kama annaha sababun li qabuli siyaam nee bokk na ci xikma yi tax yàlla digle ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko mooy ni ndax dana dimbali aji ñàkk ji dana dimbali aji xaajowoo ji ci bis bi nga xam ni feet la iit la ci jullit ñépp ba du taxaw ci buntu kenn di sàkku ci moom dara dana woomal aji ñàkk yi ba tax e, bisu korite du ñu taxaw ci buntu kenn di ko yelwaan naka noonu bokk na ci xikma ya ca ne mooy ni dafay mottali taaru koor ay doon loo xam ne dina tax sunu borom nangu kooruk aji woor ji surtout ki ko am te man ko moom zakatul fitre ba tey dafa am ay ponk ñeenti ponk te ba ci jëkk mooy ka koy joxe waxoon nañu ne ab jullit lay doon yaa xam mu kallaf la wala du mu kallaf waaye na doonub jullit loola mooy ponk bu jëkk ci ponki zakatul fitre ñaareelu ponk bi mooy kañu koy jox moom it dafa war a doon jullit waaye it doon koo xam ni day doon ab faqiir wala ab miskiin kon boobu mooy ñaareelu ponk bi mooy kañu koy jox ñetteelu ponk bi mooy waxtu wañ koy génnee waxtu wa nga xam ni ca lay ware waxtu woowa dinañ ci ñëw ci kanam allah ñeenteelu ponk bi mooy kañu ko war a jox kan la eh, kan la kon ponk bu njëkk bi di aji joxe ji e ñaareelu ponk bi di lañuy joxe ñetteelu ponk bi di waxtu wañ koy joxe ñeenteelu ponk bi di ki ñu koy jox zakatul fitr ci diggante yii la aju bu dee àtteem nag jumhurul ulama boroom xam-xam yi la ëpp ci ñoom dëppoo nañu ci ni zakatul fitri yi muy asakay muurum koor lu war la la ëpp ci ñoom loolu la wax waaye dañu wuute ci war gam war ndax waru alquran la ndax alquran a ko waral wala sunnaa ko waral e, am nañu ne zakatul fitre alxuraan a ko waral ndax ndig digle gi yàlla digle alqur e, joxe asakay alal daf cay dugg waaye asakay sakaatul yit da cay dugg ndax fa yàlla ne waaqimu salaata wa aatu zakata zakaatul fitre am na boroom xam-xam yu ne duggaale na ca ndax suñ boroom dafa boyal rek asaka ja e, lii nag jële nañ ko ci imaam Malik ci boppam muy wax ni asakay zakaatul fitre asakay muurum koor waajibatun bil quraan mu tegtaloo ci laaya jii di wax wa aatu zaka nee na bokk na li tax moom imaam malik ñu war koo dégge ci laaya jooju mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama solo nañu ci moom ne farada zakat al fitri min ramadana ala annaasi ala kulli xurrin aw abdin dakarin aw untha min almuslimina wa axadaha nee nañu imaam Malik nee na am na ay saxaaba yu jële ci yonent bi ne yonent bi dafa farataal asakay murum koor ci weeru koor da farataal ci nit ñépp ci gor farata la ci moom farata la ci jaam farata ci góor farata ci jigéen ci mbooleem kuy jullit yonent bi farataal na ko ci ñoom ba pare daan dem yónnee ñu ko daa jël ci ñoom di ko indi ci jàkka ji mu seddale ko e, kon e, Malik nee na xadis bii day feddali ni digle gi yàlla digle joxe asaka asakay muurum koor daf caa bokk yonent bi lii ñu nettalee ci moom it ci ay waxamaki ak jëfam it dafay wone la nga xam ni moom la yàlla tënkoon ci alquran ci waatu di wanewaat la yàlla tënk ca ba muy wax ni xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim nee na yàlla nee na jëlal ci seen alal sadaqa mooy sarax sarax soo xam ni danga leen ca laabale waaye it da leen ca sellale boo paree nga ñaanal leen ku la jox asaka ñaanal ko nee na loola aaya boobu mujj mujmal la ndax lan la ñuy jël ci seen alal lan mooy kammiye bi ak ci yan condition lañ koy jëlee laaya ja da koo tënk yonent bi ci xadiisam boobu mu firi ko boole ci zakatul fitri wane ni zakatul fitri it farata la mu waxati ni moom Malik ne jële nañ ci Omar ibnu Abdul Aziz ne daan na firi bu daa firi laaya ji suñu borom di wax in tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla malik nee na umar ibnu abdul aziz daan na ko firee ne innaha zakatul fitri summa alxuduwu ila al musalla nee na laaya ji suñu borom lamu ca nam mooy joxe asakay muurum koor boo ko joxee ba pare xëy dem ca jàkk ja julli ji julli eet nee na Omar Abdul Aziz noonu la ko daan firee eh, teewul nag am na ci madhabu maalik ak ci wax joo xam ni sax nag toxale nañ ko ci moom Malik di ca wax ni asakay muurum koor day sunna su war la sunna su war la buñ la nee sunna su war nag ci ku xamul istilaax dana la jaaxal ndax buñ la nee alwaajib mooy moo moo fawqa sunna ñu waxaat la sunna nekk ci suufu waajib nan la mel ni mbir doon sunna wala mu doon sunna doon waajib loola du lu du boo demee ca borom maraaq yi mi ngi lay wax ni wa sunnatun ma ahmadun qad waafaba alayhi wa dhuhuru fihi wajaba wa baaduhum samma alladi qad ukkida minha bi waajibin fa xud ma quyida nee na bu dee sunna mooy loo xam ne yonent bi daf caa sax ba pare daa ko def ci mbooloo comme salaatul iidayni comme asaka yi muurum koor ak xeet yu mel noonu loola mooy sunna mu ne waaye nag am na ci boroom xam-xami maalik yi ku mel ni ibnu abi zeydin alxayrawaan yi sunna su feddaliku ñoom daan nañ ko tudde waajib moom la wax ni wa baaduhum sama alladi qad ukkida minha bi waajibin nee na am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne sunna su feddaliku danañ ko tudde waajib kon loola kon mooy sunna su feddaliku ndax sunna yi bari nañu waaye dañoo ëppante doole sunna ya gën a feddaliku ci xeeti sunna yi yooyu la ñuy tudde sunna waajiba kon jële nañu ci Maalik it muy wax ni zakatul fitr sunna waajiba la <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko farataal laa ala wajhi alfardiya waaye ala wajhi alsunniya almuakkada li tax nag wala njëlbeenu farataal walla waral asakay muurum koor mi ngi amoon ca koor gu jëkk ga ca ba yàlla farataale koor ndax booba alhijra ila almadina dafa doonoon farata dafa farata ba yàlla daan tëkku lu bari ñi nga xam ni amanu yu yuhaajiru bay wax ni maa lahum maa lakum min walaayatihim min shay ku gëm yàlla ci jamono yooya na dafa doonoon farata ci yow nga gàddaay fekk yonent bi gàddaay farata la woon gu ñàkk goo xam ni ñàkk koo def dana tax say jëf neen say jëf yàqu walladina amanu walam yuhaajiru e, googa sunu borom di tëkkoo ñooña ñi gëm te gàddaayuñu fekk si la yow ma yow yonent bi ca Madina ñooña bokku leen ak ñoom dara amuleen gu waayoo seen digganteeg ñoom loola taxoon na ku mësa a tuub rek ak foo mës tuub foo mën a tuubee da nga daan gàddaay ñëw fekk si yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina loola dafa continuer di valable ba keroog fatxu Makka ba yàlla ubbilee yonent bi Makka Makka dugg ci lislaam keroog la yonent bi dindi loolu ca la mu waxoon ni laa hijrata ba'da al-fathi walakin jihaadun wa niyya des wa ida stumfirtum famfiru mu ne gannaaw fat fatxu makka jihaad amatul kon ca at ma ñu farataalee fekkoon na ña gàddaay jóge seeni gox jóge seeni dëkk jóge seeni réew ñëw fekk si yonent bi madina fekkoon na ñu bari lool bu mu masaa ñëw ci jàkka ja lañ leen daan dalal ba keroog ñuy am ci lu ñu jàpp ku am ci loo jàpp jéem lijjanti fooy dëkk dëkk fa ci biir madina waaye ca jàkka ja lañ leen daan dalal ñu daan ànd di defandoo lépp ci koor gi di ànd di defandoo lépp waaye bi mu demee ba nga xam ni nag woor wori jot na ndaxte eh, bu ñu masaa woor ba ngoon wala ci ba bëccëg bi ña nga xam ni amuñu woon dëkkuwaay te amuñu woon lu ñu ngànnaayoo ci alal dañ daan ndox di di di yelwaan di yelwaan ci ci ci biir saxaaba yi di dem ci kër yi ñii ñu leen di tibbal ñii di yelwaan yi eh, ñu ñuy tudde ahlu suffa Eh, ba eh, korite ga jotee nag foofa la yonent bi joxe ndigal ngir ña leen daan yelwaan si bugul bis bi kenn yelwaan ñëpp dañu war a tolloo ci taar ñëpp dañu war a tolloo ci regg ñëpp dañu war a tolloo ci jëfandikoo lu neex kon booba la yonent bi sallallahu alayhi wa bañ kenn di dem di yelwaani wala kenn dem di laaj kenn wala kenn di sàkku ci kenn wala kenn di ñàkk lekk-lekk gu neex loola taxoon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca saasa ca la yéenee ne yàlla farataal na ci jullit ñépp ñu génne azakay zakatul fitr foofa la ko yonent bi sallallahu alayhi farataale ba loolu amee e, saxaaba yi ku ci nekk la nga yor nga indil ko yonent bi bañ ko indilee yonent bi yonent bi séddale ko ña nga xam ni ñu ràññeeku woon lañu ci ñàkk la ca des lépp mu yëkkati ko jox ko ña nekkoon ca jàkka ja te mooy ahlu fa ñii di leen tudde addaafa kon ñooñu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la faratay wala waree lépp wareeluk fitr foofa la tàmbalee mooy ci koor gu jëkk ga e, comme ni ñu ko waxee madhabu malik toxale nañu ci moom mu ne farata la toxale nañu ci moom mu ne sunna su war la te sunna su war mooy sunna su feddalikoo e, waaye nag ànd ak loolu yaa xam farata la wala sunna su feddaliku la waaye chiaar la min chaairi l muslimin te chaair dafay am meneen maanaa moo xam ni maanaa mu jara bàyyi xel la chaira man na bañ a doon farata waaye am làmboo maanaa moo xam ni day gën a feddaliku farata ci wàllu woowa Euh, ci misaal euh, julli mbooloo julli mbooloo ci mazhab Malik du farata sunna la waaye bépp dëkk boo xam ni dëppoo nañu ci ne bu fi kenn julleeti mbooloo doonte ku nekk yaa ngi julli ci sa kër bu kenn demati ca jàkka ja ku ne na nga jullee këram dëkk bu dëppoo ca wax loola te fekk réew ma di àttewoo lislaam buur ba at sañ naa takkub xare attaqué réew dëkk booba sañ naa takkub xare attaqué dëkk boobu ba te ñu taxawalee julli mbooloo moomu donte julli mbooloo du farata inda al malikiya ndax lan ndax chiaar la min chaair al islam wa man yuazim chaair allahi fa innaha min taqwa al qulub kon chiaar la bu ñu war a màggal neenal ko dana tax ñu song leenub xare neenal ko dana tax ñu song leenub xare chiaar la dafa mel ni joxe azaka na mu doone woon indil ko euh, ci kapitaalu lislaam ci indil ko yonent bi daawul doy rek nga génneel ko sa bopp joxe ko waaye dañ ko daan dajale lépp jox ko imaam te imaam mooy buur booba mu xool fa mu gën a yelle mu dugal ko fa ñàkk joxe azaka googu nag ba fi yonent bi jóge ñàllankoon ne duñu ko joxe duñ ko joxe indil ko Abu Bakar euh, ñooña mooy xurub yooyu Abu Bakar defoon yépp doonul woonu xurubun li ridda am na ñoo xam ne dañu murtatoon dëgg la mu dal ci seen kaw waaye am na ñoo xam ne dañu bañoon joxe indil ko azaka ji comme nañ ko daan indi yonent indil yonent bi mu dal ci seen kaw ca lay waxe ni wallahi law manauni iqaalan kaanu yuaddunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qaataltuhum alayhi waxuma la jëléem ya ñu daan indeeg jur yi ya ñu daan indil yonent bi nga xam ni chiaar la min chaair al buum yañ ko daan takke sax buñ ko ca boolewul ma dal seen kaw loolu la Aboubacar Siddiq waxoon kon euh, du jëmm yóbbu azaka ji ci boppam mooy farata ndax azaka ku ne mën na koo génneel boppam waaye jamono yooyu indi ko Madina chiaar la min chaair al islam chiaar googa naka taxoon Aboubacar xeex dal ci kaw ñooña kon zakatul fitr eh, xirashi ci muxtasar xalil charxul xirashi ala muxtasar xalil mu doon boroom xam-xam bu mag min al malikiya azhar gii nga dégg ca misra bañ mooy premier kuñ fa nommé cheikh al azhar moom xirashi borom charxul xirashi ala muxtasar moom mi ngi wax ni eh, laa yuqaatalu ahlu baladin ala manci zakati al fitr nee na waaye nag bu amee ab dëkk bu lànk ni donte chiaar la lànk du ñu joxe azakay fitr deesul dal ci seen kaw ngir loolu donte chiaar la moom wax na ba pare nag mu waxaat ci asharxul kabir ndax dafa shara xalil ñetti shara ca sharxul kabir mi ngi fay wax ni loola la boroom xam-xam yi wax waaye nag mal farqu baynaha wa bayna baadi sunan allati yuqaatalu ala tarkiha nee na sunna la su feddaliku wala yuqaatalu ala tarkiha am na yeneen sunna yu feddaliku te képp dëkk bu ànd ci neenal ko warees naa dal ci seen kaw lan mooy différence su ñaar yooyu kon dafa def laajte gu mu indul indiwul tontoom moom xirashi eh, lu mel ni salaatul idayni bépp dëkk bu dëppoo ci neenal ko ma ne sañees naa dal ci sa kaw dëkk bu dëppoo ci neenal ko sañees naa dal ci sa kaw te sunna la su feddaliku zakatul fitre sunna su feddaliku la it waaye ku ko neenal mazhab Maalik nee na jarut ñuy dal ci kawam xirash yi indi laaj boobu te tontu lu ko waaye am na boroom xam-xam yu tontu mooy ni zakatul fitr dafa doon sunna soo xam ni maanaam a ca nekk ella ba ca nekk xam nañu ko mooy lan saddu xaajatil faqir fexe ba aji ñàkk ji du yelwaan ci bis bi du laajte ci bis bi du sàkku ci kenn dara ci bis bi comme illa la boo xam ne dafa am ci ay ñu mu aju loolu moo tax laa yuqaatalu ala tarkiha waaye salaatul iidayni moom lislaam ci boppam lay jëmmal te maanaa ma ca nekk xamee su ko xayr ma xayr muallala maanaam mi tax yàlla farataal salaatul iidayni xamuñu maanaama maanaama yuqaatalu ala tarkiha lii nag xamees na maanaama laa yuqaatalu ala tarkiha kon moom loola la yenn ci boroom xam-xam yi ku mel ni ibnu arafa loola la ñu taalilee mbir moomu e, mu demaat ci koo xam ni dafa weddi e, zakatul fitre ne du ko joxe lànk ba pare laysa laysa bi fardin ne duma ko joxe ndax du farata mu ne kooku laa yuqaatalu alayhi waaye ki ma ki ne duma ko joxe ndax gayru mashrua nee na kooku moom yuqaatalu alayhi dañuy dal ci kawam ndax lan moo tax ndax sàmmoonteeg xilaaf bi am ci ni farata la wala sunna la ki ne du farata moo tax duma ko joxe ndax ca moom bàyyi sunna dagan na kookal laa shay alayhi waaye ki ne laysa mashrua du farata du sunna bokkul sax ci lislaam nañu dal ci kawam ndax ijmaa daa am ala mashruiyati zakatil fitri e, bu ñu jógee ci loolu zakatul fitr di asakay murum koor kan la war e, junjoon nañu ko mooy ni war na képp koo xam ni jullit la tey gor taman taman koo joxe ca jamono yamu yamu doonee wareef yaa xam jamono yamu la ware danga koo mën a da ko dafa nekk ak yow nga am ko wala yoruloo ko waaye am nga possibilité yi wut ko bu weesoo koo xam ni yor na as lëf euh, ci mel ni jamono ji ñu toll nga xam ne am nga as lëf soo denc waaye yaa ngi ko denc dakaar dem Dakar mënut a nekk fi mu toll nii euh, waaye woor na la ni bu confinement bi jeexee da nga mën a dem dakaar dem jëli ko waaye jekk woo ko nii nii nii ana ata bari na lool ñu ñu nekk ci xaal boobu kooka nag moom bu boobaa day war ci yow nga leb ko boo amee ko lebal day war ci yow nga leb ko comme am nga loo koy faye waaye la nga koo faye da nga koo jekkuwul ci jamono ya mu waree kooku dakoy leb joxe ko waaye koo xam ni yaakaaru ko denc ko fenn te amaana bu ko lebee mu sonal ko kooku waratu ko wàcc na ko moom ki nga xam ni weer wi sori na waaye xam na ni weer wu dee am na salaire bu koy nekk ci barab joxuñu ko avance ci fa muy liggéeyee ci misaal waaye weer wu dee moom dana jotub saleeram am jekkuwu ko nii kooka farata ci moom bu amee fu mu koy lebe mu lebi ko ndax bu weer deewee dana jot saleeram bu jotee salaire am fay ko waaye ki nga xam ni yoru ko te yaakaaru ko kooka zakatul fitre wàcc na ko waru ko eh, ka koy joxe it war na doon waaye am na it lu muy lu muy dunde suba ginnaaw suba kooku da koy joxe e, xuutu la budda mu doon loo xam ni dafa dafa dafay ëpp la nga soxla tey waaye boo xamee ni dafa yem ci la nga soxla tey asakay muurum koor waru la waaye bu fekkee ni sa yittey tey yittey kori gi mottali nga ko waaye nag na doon yittey kori ci loo xam ni dañ koo sunnaal ci kori dañ koo sunnaal ci kori waaye la nga yor yem ci loo xam ni nga mën a ndugge ci misaal yaag sa njaboot ñaari junni ba ñetti junni te fekk fukki junni rekk nga yor nga jël fukki junni yooyu yëpp def ko ci kori gi ba pare ne awma lu may joxe muurum koor déedéet yow am nga ko danga koo def ci loo xam ni euh, da dul priorité euh, kooka wàccu la xotti li ñuy njaboot geeg yooyu yëpp ndax lu baax la ak yenn xeeti lekk yi nga xam ne du soxla lépp ci bis bi yooyu yëpp eh, dafa weesu xaajoy bis bi kon ku desat ku desal as lëf lu ëpp sa xaajoy bis kooka war ngaa génne asakay murum koor eh, ña ngi koy génneel it mooy képp koo xam ni dundam ci yow la aju képp koo xam ne yaa koy dundal ci sa njaboot la bokk yaa xam mu ngi ci kër gi wala daa fare feneen waaye ay mbiram ci yow la aju kooka danga ko ko war a génneel kooku génne génneel ko ko ci yow la war eh, képp koo xam ne nag mu kallaf nga di ko mën a amal sa bopp li gën mooy nga teggil ko say way jur teggil ko fa nga ne nga génneel ko sa bopp ndax jafewul ndax kële la ko génneel yool ba moo koy moom ko sa bopp nag donte dana la laabalal sa koor amul sikki sàkka waaye yool ba ca nekk moom moo koy moom yow mi ko man ñaari kilo ceeb ak aslëf man koo génnee weesuwul téeméer ak fukk génneel ko sa bopp gën ngay wekku ca góor ga ba tey génneel ko sa bopp ndax sinon góor ga dana yóbbu tuyaaba yépp yow doo doo doo doo am dara lu dul ni rek laabalal na la sa koor kon képp koo xam ni mukallaf nga sopp nañu ci yow nga génneel ko sa bopp bu dee kenn du la ko génneel bu dee am nga sax ku la koy génneel bu dee nag amoo ku la koy génneel boobaa day dal di war ci yow nga génneel ko sa bopp say jur yi nga xam ni seen loxo jotut seen ginnaaw it yow doom ji war na la nga génneel leen ko sa doom yi góor yi kallafagul war na ci yow nga génneel leen ko ku ci doon mu kallaf te jàppagul ci dara nga génneel ko ko bu fekkee ni nag kuy man di amal boppam crédit la bis bu jot dana jënd paas 500 francs kooku booy boo nga bàyyi ko mu génneel ko boppam ndax loolu mooy priorité euh, ndax shabaab yi xale yu góor yi léegi mu kàllaf yi euh, ñàkk dana ñàkk lu nekk ba mu des crédit lu nekk danañ ko ñàkk ba mu des paas kooka bàyyi ko mu génneel ko boppam mu tàmm ko ndax moom it mu am lu muy fàggu ci tuyaaba war nga ko génneel it say soxna Eh, war nga ko génneel sa way jur wu góor bu dee daa am soxna donte soxna sa eh, képp ko soxna sa du sa ndey képp koo xam ni dafa aju ci yow te ñàkk te munu ko danga ko ko war a génneel génneewaaleel képp ku aju ci moom mooma mbindaan mi sa baay yore ca kër ga te sa baay yaa ko yor mu am koo xam ni sa baay rek lay liggéeyal wala yeneeni soxnaam mu wareen leen yor wala yeneen doomam yoo xam ni amaana bokk leen gi ci yow la aju kon ñoom it tabaan li góor gi ci yow lañuy ñuy aju ñoom tamit ci yow lañuy aju da leen koy génneel eh, képp nag koo xam ni lot nga ci mën ko génnee ca jamono ya muy war lu jëkk iid gi ba bisu iid gi jot ñu julli ji ba ñëw génne asakay murum koor waratu la waaye sopp nañ ci yow nga baaxantal doonatul waajib ci yow yool wa it dootul tollook yool yi ka ko génnee ca waxtoom waaye nag mën nga koo dabu eh, ci wàllu man du bi mu doon lu ñu sopp ci yow nga génne ko loola it boroom xam-xamu maalik yi wax nañ ko eh, ki nga xam ne dafa nekk ciw tukki nekkul këram nekkul dëkkam te aadatan daan nañ ko ko génneel way juróom ni ci ay kilifaam waaye bu fa nekkul rek na ko sopp nañu mu génneel ko boppam ixtiyaatan ngir léemtu ndax amaana nekku fa fàtte nañ ko ba génneeluñ ko ko amaana ñàkk gam fa ñàkk nekk tax nañu fàtte ko ba duñ ko ko génneel waaye bu ko wóoree ne duñ ko ko génneel donte daa nekk ci tukki war na ci moom mu génneel ko boppam donte daa nekk ci tukki amaa nag zakatul fitre kañ lay war boroom xam-xam yi wuute nañu ci ci ñaari wax surtout malikiya yi am na ñu ne dana war bi gurubi shamsi aaxiri yawmin min ramadan bis bi mujj ci weeru koor bu jant ba sowee rekk am na ñu ne asa zakatul fitre war na booba la ak wareef gi tàmbali am na ñu ne déedéet mi ngi war bisu kori gi jant bi fenkee rek bu fajar gi fenkee rek foofa la war foofa la ware war gi di tàmbali kon ci kaw loolu bu jant bi so wax ni bu jant bi sowee ci la war ci bis bu mujj ci weeru koor kon gannaaw ba jant bi sowee ku ci sa soxna am doom doom jooju doo ko ko génne laaleel ndax bokkul woon ca koor ga booba war gi daa war ba pare moom mu doog a juddu ñi ne nag bu fajaru bisu korite gi fajar gi xare booba la tàmbalee di war ku ci sa soxna am doomit gannaaw ba jant ba sowee bu boobaa danga koy boole da nga ko cay génnewaaleel ndax booba ba muy judd booba war gi tàbbeegul loola it boroom xam-xam yi wax nañ ko eh, kañ lañ ko war a génnee kañ lañ ko mën a sañ a génnee la shakka ni lay wareef gi mooy génne ko ci bisu korité ci bu bu bu bu fajar xasee xar walla guddi korité xasabal xaw lay ni ci ñaari mazhab bi waaye nag ba tey wuute am na ci mazhab bi ci weneen wàll mooy ni ndax di ko mën a génne asakay muurum koor lu jiitu bisu korite gi lu ko jiitu ci benn bis wala ci ñaari bis am na ci madhabu Malik ñu bari ci ñoom nee nañu sañees na koo génnee bu korite desee ñaari fan wala bu desee benn fan waaye warta ëpp ñaari fan sañoo ko génne bu korite desee ñetti fan waaye ñaari fan ak benn fan sañees na ko caa génne loola qawlun mu'tamadun fil madhab ñu bari ci mazhab Malik wax nañu loolu te wax ju ñu mën a sukkandikoo lañu wax jooju it daa tegu ci wuute boo xam ni boroom xam-xamu usul yi ñoo ko wuute woon bu yàgg te mooy jaamu yàlla woo xam ni dañ ko wutal waxtu ndax sañees na koo jiital lu jëkk waxtu wa di jot wala sañeesu koo jiital laa budda nga xaar ba waxtu wi yegg si nga dog koo def wuute nañu ci loolu waaye lépp ci maalikiya yi dañoo séddale mbir moomu ñaar ñu ne bu dee jaamub yàlla la boo xam ne dañ ko wutal waxtu mu doon jaamub yàlla kese lenn kenn nekku ci comme julli bu boobaa laa yajuusu taqdimuha an waqtiha ndax jaamub kese la gu kenn xamalul wenn yilla dañ ñoo digal rek ne jullee leen nii ci waxtu wi ñuy jullee noonu kon jaamu yàlla kese la yoonu kenn nekku ca lenn kenn nekku ca xalaatu kenn nekku ca ci waxtu yaak yooya jaamu yàlla gu mel noonu kenn sañu ko koo jiital an waqtiha lu dut fii xududin mahduda fii xududin dayiqa lu mel ni eh, aljamu bayna salaatayni taqdiman surtout muy tisbaar ak tàkkusaan nga jiital tàkkusaan nga wala timis ak gee nga jiital gee ga lu dut loolu sañoo julli waxtu julli te waxtu wa jotagul sañoo julliw julli te waxtu wa jotagul ndax lan jaamu yàlla la gu ñu xamut sansam jaamu yàlla la goo xam ne ak njaamu kese la leneen nekku ca waaye bu fekkee ni jaamu yàlla la goo xam ne dañoo xam ella ba wala jaamu yàlla goo xam ni e, la ko tax a jóg mooy rek na jaamu googa am ak nu mu mën a amee baax na comme bu la nit wóoloo fay bor booba farata la jaamu yàlla la yàlla ko digle inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha ida tadaayantum bi daynin ila ila ajalin musamman faktubuuhu aayatu dayni e, day farataal fay bor kon fay bor jaamu yàlla la ndax ndigal la waaye lan moo tax ndigal la lan moo tax ñu digal ñu ko ndax àqu jàmbur la dañ la koo lebaloon da koo war a delloo tuukur àqu jàmbur kese la moom bor bu ngeen deelante woon ne ko weer wu dee laa lay fay nga leb ci moom tey ne ko bu weer wi deewee la cinq ma fay la suba nga jekk ko dem fay ko loola lu ñu gërëm la lu ñu gërëm la def nga ndigal fay nga bor ba baax na donte da koo jiital an waqtiha waaye bu fekkee ni jaamu la goo xam ni dafa am ñaari iba genn wàll gi jaamu lay xàqu jàmbur la googa ndax sañees na koo jiital wala sañeesu koo jiital te joxe azaka yi alal def caa bokk sakaatul fitr yi da caa bokk zakaatul fitr ak joxe azaka benn pàcc ba jaamu yàlla la beneen pàcc ba yëfi jàmbur la nga war ko koo jox yàlla farataal ko ci yow gii nag boroom xam-xam yi nee nañu dagan na nga jiital ko joxe azaka des weer ñaari weer sañ ngaa joxe ta joxe waxtu joxe ko jotagul koo xam ni wóor na ni denc nga lu jot lu mat nisaab mu des weer walla ñaari weer eh, la gën a wér mooy ni sañ nga koo jiital sañ ngaa jiital asaka jooju donte xawalaanul xawli yegg seegul motagul at jiital ko ngir aajo comme li xew ci at mii muy mbiru corona bi bari woon nañ ci doon laajte lool ndax mën nañu ah kay dagan na ndax azaka dafa am shaaibatu al ibaada ak shaaibatu al eh, alxaaja asaka yi joxe muuru muurum asa joxe mu asaka yi muurum koor day dugg ci bunt boobu mën nga koo jiital boo demee ci maraaq yi ca muy wax ci wàll woo mi ngi lay wax ni fa laysa yujzi man lahu yuqaddimu wala alayhi duna xadrin yuqdimu wa da taabudu wa ma tax mahada lil fi'li fa taqdimu fihi murtada nee na jaamu yàlla kese ku ko def te waxtoom jotagut am nga ca problème ndax la nga def baaxut te bàkkaar dana la ca topp waaye loo xam ni eh, jëf ji rekk a ko tax a jóg comme fay bor teel koo fay lu ñu gërëm la mu ne nag wama ila hada fihi xulfun duna nassin qad julib nee na loo xam ne dafa am shaaibatu al ibada ak shaaibatu saddil xalla euh, lépp am ci comme asakay muurum koor comme lu mel ni joxe asaka bu boobaa wuute nañu ba xam man nga koo jiital wala mënuloo ko jiital waaye madhabu malik nee na man ne lu bari ci ñoom du ñëpp nag waaye lu bari ci ñoom nee na sañees na koo jiital waaye jiital ga bu mu yo bu mu romb yow aw yow may ni ndax lan ndax asakay muurum koor la ko tax a jóg mooy sadd xaajatil faqiir ci bisu kori wi boo ko joxee ci njëlbeenu koor gi donte am na ku ko wax sax nag muy ibnu arafa nee na mën nga koo joxee ci njëlbeenu koor gi donte loolu xawlun shaaz waaye boo ko joxee boo moytuwul mu ndogoo ko lu jëkk muuru lu jëkk eh, bis ba di jot te bis baa tax a jóg zakatul fitr kon ginnaaw bu ñu xamee nii lu bari ci mazhab malik nee nañu eh, ci lu tolloog benn bis ak ñaari bis bu mu toll ci bu mu yegg ci ñetti bis waaye teewul lañu gën a sopp mooy nga génnee ko la daa dagan rek waaye lañu gën a sopp mooy nga génnee ko baada fajri yawmil iid ci ginnaaw fajaru bisu iid ga e, ku ko am jekku ko xaraam na ci moom mu yeexal ko ba iid ga weesu waaye bu fekkee ni am na ko génnewu ko ba iid ga weesu bu boobaa it e, du tax mu mu wàcc ko dana ko joxe te amaana du ca am yool ba ca ña ko ña ko ña ko joxe ci waxtoom am dafay tegu ci kawam ba faw ca bis baag te la ca topp ba faw comme jekk woon na ko bañ koo joxe loola ab bor la wu tegu ci loosam ba faw xadis ba ñëw nag donte xadis bi coow nañ ci ci wéram ak wéradéem ci ni woor weeru koor dañ koy du yegg bata boroom joxe muurum koor am na ci boroom xam-xam yoo xam ni ci ku mel nii lañ ko wàccee mooy ki nga xam ni da koo am jekku ko te bañ koo joxe kooko wooram kooram du yegg am na ñoo xam ne xadis boobu nee nañu kooko rek lay wax bu fekkee ni nag miqdaar wa ñuy joxe kammiya ba ñuy joxe ñaata la saa mooy li ñuy joxe saa nag mooy toll ci ñeenti mudd mooy saa lan lay tollool ci sunu nattuwaay yu tey am na ay wuute yu ndaw yu ci am ci diggante boroom xam-xam yi am na wuute yoo xam ni ajuwut ci tolluwaayu saa ba waaye dafa aju ci la ngay la ngay joxe ndax xeeti pepp yi dañoo ëppante ak diisaay boo nattee ci potut saa ci yenn pepp yi def ko ci balance la mu lay jox ci kilo dana wuuteeg yeneen xeetu pepp yi boo ko nattee la mu lay jox ci ay kilo teqale diggante boobu eh, ñu ne bu dee comme léegi wàllu balance moom la nit ñi di gën a jëfandikoo que nat eh, bu fekkee ni looy teg ci balance la saa am na ñu ne mi ngi toll ci ñaari kilo ak deux cent grammes am na ñu ne ñaari kilo ak deux cent cinquante grammes am na ñu ne ñaari kilo ak cent grammes deux cent grammes yées na genn wàll liibar tuuti deux cent cinquante grammes mooy genn wàll liibar ñaari kilo ak genn wàll liibar wala ñaari kilo ak lu yées genn wàll liibar tuuti. wala ñaari kilo lu wala lu ëpp genn wàll liibar tuuti loola lépp boroom xam-xam yi mu aasiruun yi wax nañ ko ci dayoy saa am na sax ñu ne ñaari kilo dëgg la am na xeeti pepp yoo xam ni lu mel ni mboq ñaari kilo da cay tolloog saa ñaari kilo yi mboq euh, day tollook saa boo ko defee ci nattuwaayam day tolloog moom euh, naka noonu bësi yaa bu weex bi la wala bu xonq bi wala bu ñuul bi moom it ñaari kiloom day tollook saa waaye bu dee suuna ak dugubu saañoo loola ñaari kilo manqué na saa ndax yële dañ koo gën a diis moo tax euh, kon nañu jàpp ni ku koy génne ci dugubu suuna wala dugubu saañoo wala nga koy génne ci lu mel ni foño loola moom ñaari kilo ak deux ba deux cent cinquante grammes loola dana tollook saa Eh, bu fekkee ni nag ku koy génnee ci mboq ak dugubu bësi kooka moom ñaari kilo doy na ko ndax moom it mooy tolloog saa eh, kon loola mooy li aju ci miqdaar bi nga xam ni moom lañu ñu war a génnee eh, képp koo xam ni nag danga nekk ak sa njaboot fukk ngeen ci misaal waaye la nga jekku ci bis ba lu ëpp la nga soxla ci bis ba la ca des wala juróom yi wala juróom benneel bi kooka naka lay def na génneel ñooña ndax yàllaa ne fa fattaqullaha mastataatum yonent bi teg ci ni ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastataatum lu ma leen digal def leen ca lu ngeen man te yow tey kat njaboot gii di fukki nit juróom wala juróom benn nga ci mën a génneel génneel leen te booy génne nag nga njëkke ci sa bopp su al aqrab fal aqrab nga yénn ci sa bopp yow sa bopp eh, boo paree a gën a jege te këla gën a jege mooy doom mooy doom ña ca topp dal di cay topp eh, noona it lañu ko waxee ci wàll woowa eh, bu fekkee ni ca lañu koy génnee asnaaf ya nga xam ni ca lañuy ñuy génnee zakatul fitr eh, dëkk bu ne yonent bi dëgg la wax na ci jamonoom juróom-ñeenti yëf danañ ci ñëw ci kanam yoo xam ne ci lañuy génnee zakatul fitr la nga xam ni ijmaa da caa am mooy ni ku ci nekk dëkk ba nga ne la gën a not ca la ñuy dundee loola ca ngay génne zakatul fitr bu dee ci Sénégal la fi not ci la ñuy dundee ceeb la ak dugub moo not ci lañuy dunde yenn saa mboq topp ca waaye ceeb ak dugub daal daanaka ñëpp moom la ñuy e, kon ku koy génne fii ci Sénégal e, la gën mooy nga génne ko ci ceeb e, walla ci dugub kon senegal ci misaal ceeba fi ne eh, dugub tamit saañoo ngi fi suunaa ngi fi mboq a ngi fi bësee ngi fi am na ñu naan fellaak kumpa ak xeet yooye yépp ak foño yooye ñoo am senegal kon ku koy génne nga génne ko ci yooyu loo ci gën a jekku rek nga génne ko ci bu dee la fi gën a yomb te nga dunde ndax mën nga koo génne ci foño foño benn xeetu pepp la boo xam ne moo gën a cher ceeb ak dugub ndax moom kilo bi rek eh, yenn saa yi dina yegg ci mill francs ku am foño di ko ci génne it bu la neexee nga génne ko ci ngéneel la waaye nag lala ca war rek mooy la gën a diggu doomu ca la ngay dundee forcé wuñ la yit nga génne ko ci parfumé bu la neexee ceebu cambodge bi ak siam bi nga génne ci du ni ceeb ngay dunde da koy génne parfumé du ni yow sa kër kat su korité wala fan yooyu yaa ngi doon lekk parfumé kon parfumé nga war a génne loolu charia taklifu la ko ceeb daal umuman moom ngay dunde génne ko ci ceeb génne ko ci ceeb e, kon bu fekkee ni e, sa dëkk li ñuy dunde yow loola nga am génne ko ci loola e, la ngay dunde nga ko war a génne loola moom dafa mel ni yonent bi ci loolu la àddoo ca ba muy wax juróom-ñeent yañ koy génne juróom-ñeent yooya moo nekkoon dund waa Madina ci jamono yooyu moo tax madhabu malik ñoom lañu ñu yi mooy ni yii yonent bi wax bu fekkee ni mooy sa dundum réew sañoo ko génne ci yu dut yooya donte ñu ngi dundee leneen waaye yii ku mu doon ku mu doon dundinum dundum réewam la doon sa dundum réew génne ko ca loola loola imaam malik loolu la wax ca la ngay dunde rek nga ko war a génne boo demee ci xataab ci euh, mawaahibul jalil fi charxi muxtasar xalil mu ngi ci wax ni li nga xam ni moom la madhabu malik wax yépp rek ci masala mi nee na bu ñu ko doon tënk dañuy wax ni lan noot ci xuutu ci dundub la waa réew moomu di dunde lañ ko war a génnee daa lu wuuteeg juróom-ñeent yooyu yonent bi tuddoon kon nattuwaay wi mooy la réew ma di dundee euh, bu fekkee ni nag la réew ma di dunde am na leneen am na eh, la réew ma di dunde am na yooya yonent bi tuddoon am na nee na li gën mooy nga génne ko ca yooya yonent bi tuddoon moo gën eh, nee na bu weesoo loolu it eh, képp koo xam ni yii nga xam ni moom la yonent bi tudd du sëw dund waaye yaa ngi dundeb sëpp masalan wala yaa ngi dundeb yi benn xeetu ariko bu boobaa mën nga ko mën nga kaa joxe ci yooya noonu la ko xattaab waxee eh, waaye teewul imam malik waxoon na ci mu dawana ni xeetu sëb yépp kenn du ca génne zakatul fitre wax na ci mu dawana nasan ni wala yujzi fi zakatil fitri shay'un min al yaati lépp loo xam ni xeet ariko bu mu mën a doon yaa xam lanti la yaa xam ariko blanc la yaa xam xeetu ariko bu mu mën a doon te sëb ci la bokk bu weex beeg bu xonq beeg bu ñuul bi mënee su ko caa génnee nee na du doy euh, donte mu tekki ne donte sax sëpp dafa amee ngeneelu xeeti pepp yooyu waaye du doy loola imaam Malik waxoon na ko waaye teewul la waa madhab bi jëfe dafa wuuteeg li madhab li Malik wax ndax Malik ku ko xam-xam ni du doon ma dina la xamoon ak la ko wër buy wax kon dañuy dégg ni waxam ardu xijaasa ko la doon soxal ci waxam ndax musta dem ci mennum réew ci dundam Makka ak Madina ci la ma sa yem moom imaam Malik kon loola makaan wa mu doon dund environnement yi mu doon dund doon na jeexital yenn saay ci ay fatwaam moo tax mu ne deesu ko génne ci sëpp am na réew yoo xam ne seenu dund sëpp la misra ci misaal la ëpp ci seenu dund adaf bi la ñi jaar misra xam nañu ko lu ëpp ci seen dund na ceeb mel ci ñun am sëpp mooy fuul noonu la mel ci waa misra te nag comme miyaar ci àtte ba fa ko yonent bi teg mooy li li ëpp ci li waa réew moo ma ñuy di génne lu ëpp ci lañuy dunde kon loola boo xoolee ci mazhab bi nañu doxale dafay wuteeg ni Maalik àddoo loola yépp muraatan li illati ixraaji zakatil fitri sàmmonteeg illa ja rekk moo tax eh, mu des beneen masala moo xam ni bari na li koy nit ñi di laaj te mooy ndax asakay fitr zakatul fitr mën nga koo génne génne ko ci xaalis génne xiima ga mu doon loo xam ni bari na ci coow ci jamono yu yàgg ba tey du lu bees mazhab Malik nag ñaari wax a ci am ci masala moomu la gën a siiw gën a wérit fil madhab mooy ni adamu ijza il qiima ne génne ko ci xaalis doyul ku ko génne ci xaalis génne woo ko la ci mazhab Malik loolu la wax boo demee ci ibnul qaasim loola la yaxal ci mu al mudawanatul kubra te loolu mooy al ci mazhab bi muñ la nee mashhur nag ci mazhab bi mooy maa kathura qailuhu am na ne al mashhur huwa maa qawiya daliluhu am na ñu ne al mashhur huwa qawlu ibnul qaasim fi l ñetti ñett yépp am na ñu ne mooy mashhur fi l donte al mashhur la wér mooy ne al mashhur maa kathura qailuhu waaye ibnul qaasim moom ci ma ci mu dawana la mu fa yaxal mooy ni génney xiima génneel ko xaalis doyul te loola mooy li wér li li doon gëna siiw ci madhab bi ndax ibnul qaasim nee na malik nee na wala yujziuhu an yadfaa fi nee na doyul aji génne ji zakatul fitre mu génne ko def ko njëg génne ko ci xaalis daganut munta nekk du ko doy moom ibnul qaasim nee na laaj nañu Maalik ci waajoo xam ni eh, amul bele foo xam ni bele mooy seen dund te amul bele bu muy génnee ci bisu iidul fitr bisu korite waaye am na njëg génne xaalis jox ko ka ay miskiin pour ñu dem jëndal seen bopp bele ndax gis na ni looloo gën a jàppandi te moo gën a gaaw Malik nee na ko laa yafalu dalik bu mu ko def waru koo def ndax yonent bi waxewu ko noonu diglewu ko noonu Malik loola la doon àddu kon loola mooy wax ju jëkk ji comme ni ñu ko waxee gën a siiw gën a wérit nag waaye teewul am na jeneen wax ju ñëw ci madhab bi mooy ni joxe njëg joxe njëg loole boo demee ci almawaasiya xam ni mooy ñetteelu téere ci ñeenti téere yi madhab Malik sukkandikoo di al mudawana ak al utbiya ak al mawaziya ak al waadiha ndax yooya ay taalibey Malik wala ay taalibey taalibey Malik yu sës ci ñoom ñoo ko bind mawaziya bii moom Muhammad ibnul Mawaz la mu fi toxal mooy ne moom day li mu jële ci ibnul Qasim jële ko ci ashhab mooy ni dagan na nga génnee ko xaalis gis ci mu dawana mooy ni daganut werut waaye nag mawaziya moom ibnul Mawaz nee na ibnul xaasim nee na sañees na koo xaalis ashhabit di taalibeb ibnu eh, maalik moom it nee na sañees na koo génnee xaalis eh, ba tey eh, isa ibnu dinaar moom nee na ibnul xaasim wax na ni mooy nga génne ko ci yooya yonent bi tudd waaye boo ko génnee ci xaalisit laa ba'sa biha aayu isa ibnu dinaar loola la solo moom it jële ko ci ibnul qaasim boo demee ci ibnu rushdi al jadd ca al bayaan wa tahsil mu ngi cay wax ni lii isa solo ci ibnul qaasim day wuute naag li abu zayd solo ci wax yi ñu toxal dafa dafa def contradiction waaye ibnu rushdi nee na déedéet loolu deful contradiction ibnul qaasim fële dafa wax la mu jële ci maalik waaye fii mu ne dagan na da koo wax ngir ni da caa gis maslaha ak ngir woyofal bañ a teengal moo tax mu waxe noonu fii e, ibnu arafa it jële nañu ci moom mu saxal ko ci ay fatwaam nee na zakatul fitre manees na ko génne xiimatan mu teg ci sax ni bu la neexee sax nga génne ko ci bis bu njëkk ci ramadan waaye waxam ju mujj ji wax ju chaz la wax ju wéet la ci mazhab bi lam yutaaba alayhi kenn topp ko ca moom rek a ko wax moom moo ko wéetoo waaye génne ko eh, def ko xiima loola am na ñeneen ñu ko wax ci mazhab bi bu dee ci biti mazhab Malik nag Buxaari moom loola la gisoon moom imaam Abu Xanifa it gisoon na loola ne génne ko ci njëg moo gën boo demee ci borom kafaaf eh, mu ngi ciy wax wa qiimatu zakati anha takfi lada al imaami alxanafi waljofi وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسب ولكن الأصح عنه المعتبر عدم الإجزاء وعليه المختصر nee na xiimay asaka yaa xam zakatul mal la wala dana doy nga génne ko njëg xiimay awee palaasu jëmmi asaka jur war nga génne ko xaalis asaka ju mu doon nga génne ko xaalis nee na dana doy euh, abu xanifa nee loola baax na buxaar yi mooy jox fi moom it nee baax na ashabit ci maalikiya yi la taalibeb maalik la bu sës ci moom moom it nee na baax na mu ne toxale nañ lu mel noonu it ci ibnul qaasim nee na waaye la gën wér te ñu considéré ko ci mazhab maalik mooy adamu lijza mooy du doy wérut te muxtasar xalil it loola la wax nee na wérut doyut boo demee ci bu bulxatu saalik bu saaw yi nga xam ni mi ngi ci eh, def xaashiya ci asharh kabir ala aqrabil masalik bu sidi ahmad dir dir mu ngi wax ni la eh, dir dir wax ci ni falayriha nee na doyul nga génne asakay muurum koor jële ko ci yeneeni yeneeni yeneen yu dul pepp yi Euh, cheikh ahmad saawi nee na ida lam yakun dalika alxayru aynan wa illa fal adharu alijza li annahu yashulu bil ayni saddu xallatihi fi dalika alyawm moom dafay taqib waxi euh, di waxi diir diir jooju mu wax ni euh, waree su ko génnee lu dul ci xeeti pepp yi saaw yi teg ci ni charte bu fekkee ni leneen la muy wax du xaalis waaye bu dee xaalis la la gën a wér la gën a fés mooy ni dagan na nga génnee ko ndax xaalis la faqir bi gën a soxla ca bis ba Cheikh Ahmadou Sawi loolu la ndax nee na faqir ba xaalis la gën a soxla ca bis ba te loolu boo xoolee jamono na muy doxee loola dafay mel ni dafa nii bu fekkee ni dañuy dellu ca la yonent bi waxoon ca xadiis ba uhnuhum an suali fi fii al yow fexe leen ba fuqaraaw yi du ñu yelwaan ci bis bi ndax sunu aada ci sunum réew mooy ni bis bi ku ci nekk daanaka dooy togg ceeb sa kër dooy dooy dooy togg pepp ci sa kër lu baree bari diggante yàpp ak ginaar la ñépp di jëfandikoo ci bis bi loolu mooy aada sunu sunum réew ci koriteeg tabaski kon fexeel waa ji tamit moom mu jëfandikoo yàpp ni yow ñoom ci loolu lañ ko teg illa boobu la ñu xool illa yu uxnuhum an suali fi hadal yow ndax boo joxee bu ñëpp joxee pepp day mujjee te fekk dencul lu muy jënd ay ganaar wala lu muy jëndee ndawal bu boobaa eh, day jël ca lan ko joxoon rek dem jaay ko walla sax bis ba mu ñëw continuer di yelwaan ndax bëgg na lu muy jënd yàpp ak lu muy jënde ganaar kon bu ñuy joxee pepp ñuy joxe xaalis loola bu ñu delloo ca xadis ba dikuwaay ci ni loolu lu mën a nekk la ci ni loolu lu mën a nekk la eh, kon Eh, loolu mooy li am wuute ci wàllu woowa donte nag madhab bi la ca gën a wér mooy nii génneey xaalis du doy waaye bu ñuy xool xikmay tashri' lii di zakatul fitre eh, teyit nag am nañu ko wax ci madhab bi ka toxale lële ci Maalik moom ci boppam moo wax wax jeneen jii di génnee xiima loola kon dana mën a woyofal Eh, dana mën a tax nit ki amu sañ-sañ ci man koo génnee bil qiima donte nag madhab bi la ca wér ca boroom xam-xam yi wax laa yufta illa bil mashhuri wal rajixi wal asax wa saxiix lee nag eh, al al daif huwa muqaabil al kon génne ko ci njëg daif la fi l madhab al rajix muqaabil al marjuux génne ko ci njëg eh, loola it marjuux la ci madhab bi waaye ànd ak loolu yépp eh, eh, ilal yi yenn saa yi bu ñu koy topp danañu mën a am porox ndoll bu ñuy mën a jaar ba lu mel noonu ñu mën koo ñu mën koo sañ ngir rek li saddi xaalatil xaajatil faqiir eh, yi ñu ci sopp it bari na ak ya nga xam ni dafa dagan waaye dañuy tënk ci wàllu zakatul fitre rek wax ka nga xam ni moom lañu war a jox zakatul fitre mooy alfaqir wal miskin innama sadaqaatu lil fuqaraay wal masaakiin ña ca topp ñëpp deesu leen jox zakaatul fitr lu dul ni bu fekkee ni dañu doon ànd ak loola leen dal dañoo doon ay fuqara wala doon ay masaakiin ndax asakay fitr bisa ko tax a jóg mooy bisu koritee ko tax a jóg looloo tax bisu korité jooju na ñépp rek nekk ci tawfiix moo tax ci wàllu faqiir wal miskin lañ koy jox duñ ko jox kenn ngir mu faye ko bor duñ ko jox kenn li taalifi qalbihi duñ ko jox kenn ngir ni dafa nekk rek doxandéem ci dëkk bi déedéet dañ koy jox ndax ni dafa xaajowoo eh, ci bis bi mooy la muy korite kon ñooñu ñooy ñu ñuy jox eh, zakatul fitr kon loolu ci tënk mooy li ñu tënkoon ci lu aju ci zakatul fitr eh, beneen pàcc waxtaan wi salaatul iidayni wa xaatu iidul fitri gi nga xam ni moom la ñu dëgmal kon ñaari iid yi comme ni ñu ko xamee julli ko sunna su feddaliku la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def moo k witr na mazhab Maalik salaatul iidayni mooy ni sunna ayniya la ñenn teewe ko taxut mu wàcc ña ca des fardu ayni dafa am waaye sunna ayniya it dafa am kon salaatul iidayni sunna ayniya la teewut nag am na ci mazhab bi ba tey ñu ne sunna kifaa'iya la am na sax ci mazhab bi ñoo xam ni wax nañu xawlan shadhan te mooy ni fardu kifaaya la loolu yépp am na waaye lay wax ni du farata mooy la yonent bi sallallahu ci beneen xadis ni xamsu salawaatin faradahunna allahu ala al ibaad mooy am na juróomi julli yoo xam ni suñu borom da ko faratal ci ay jaamam loola tegtal la ci ni julli gudut juróomi julli yooyu du farata dana doon nag sunna waajiba di doon sunna suñu feddali dana doon it sunna dana doon mandub ak mustahab julli iid it kan la war julli iid képp ku julli jumaa war julli iid war na la te mooy góor goo xam ni mot na mukallaf doon gor te dëkk ci julli yooyu ñuy jullee jumaa kooka it mooy ki julli iid war wala koo xam ne dëkkul ci dëkk bi waaye digganteem ak dëkk bi weesuwul ñetti mil loog juróomi kilomètre taqriban eh, julli iid comme julli jumaa warulub xare warul warulub jigéen warulub jaam warul aji tukki koo xam ni yéenewut a sax yéenewut a wulub dëkk eh, ñoo ñépp waru leen waaye ku ko ca def rek yàlla fay la nga am ci tuyaaba waru leen du sunna su feddaliku ci ñoom waaye ku ko defit def nga lu ñu sopp def nga lu baax jigéen joo xam ni njegemaar la jànq la ci digg taaram kooku it soppuñu ko ci moom muy teewe julli iiday nii waxtu mooy gannaaw bu ñu jullee fajar ba jant ba fenk ba yëkkatiku foofa la julli iid di commencé yaa xam jullik tabaski la wala jullik jullik korite eh, bu yëkkatikoo lu tolloog eh, tolluwaayu boobaa julli ga foofa la foofa la sunna gi di tàmbalee Eh, sib nañ ko nag nga def ko eh, lu jë bu jant bi di doog a fenk bàyyil mu fenk ba yëkkatiku nga doog koo def waaye bu fekkee ni jant bi xaal ba muy fenk tàbbal fa julli googu moom dafa xaraam ndax julli bu waxtu woowa kenn du ca julli fa waxtoom yamit mooy ilaa xiini zawaal ba keroog jant bi waxtu julli tisbaar buy fa muy dugge foofa la waxtu julli it di yem xam ne bu tisbaar xasee jot dee su ko julleeti ndax waxtoom waxtoom weesu na te naafila la te dafa doon naafila goo xam ni deesu ko fay ndax xeeti naafila yi genn lañu genn lañ la digal nga fay ko te mooy julli fajar ñaari ay fajar yi rekk lañuy ñuy fay eh, la ca toppoo la ci topp mooy naka la ñuy julee iid kooku moom imaam yàgg na koo def yàgg na koo jàngale xamees na ko te moom comme imaam rek la soxal loo tax loola duñ ci àddu lool donte daa bokk ci àtte e ku ñu jiitu nag nga xam ni da ngaa fekk ñu julli iid ba pare bu fekkee ni da ngaa fekk imaam nekk ci jàng ci ràkk bu njëkk bi yow boo ñëwee dangay ngay kàbbar juróom-ñaari kàbbar nga boole waale ca bu ixra bu fekkee ni da ko fekk boo ñëwee da ngay kàbbar juróomi kàbbar ixra bu imaam sëlmalee nga jóg di julli bu boobaa nga fay la la rawoon juróom-ñaari kàbbar ngay ngay kàbbaru moom ci tënk ci gàttal e, ya nga xam ni dañ koo sopp ci bisu iid bari na lool e, la ca ëpp solo mooy sangu ca bis ba sangu ga nag mi ngi war ci sudus bu mujj bi ci guddi gi bu guddi gi demee ba des lu tolloog sudus boo xaajoon guddi gi juróom benn bu mujj wa ci misaal diggante quatre heures ba six heures diggante boobu sañees na cee sangu yéene ci googa e, sopp nañu ko ca sangu e, am nañu ne sangu ga fa ñu koy soppe mooy boo jullee suba ba pare e, sangu ba nag dafa yore àttee iid ga inda baadil ulama mooy ni sunna su feddaliku la waaye am nañu ne du sunna su feddaliku sunna la rek comme sunna yi ci des am na ñu ne sax dañ koo sopp waaye du lu ñu sopp it du lu ñu sunnaal mu taxaarloog waxtu julli wa ga waxtu woo ko defee rek ca bu it ga rek eh, baax na ñaareel ba mooy nga xeeñu lu neex nga gëttu laal gëtt ak sol yére yu taaru bu mënee doon yu bees moo gën waaye na doon yu bees mënee doon yére yu bees moo gën waaye yu bees yu la dul tee joxe murum koor su dee da koy ñaw lu jënd ko nga xam ni boo ko defee doo mën a joxe murum koor bu boobaa murum koor gaa gën a feddaliku ndax lii lu ñu sopp la lale sunna su feddaliku la wal waajibu laa yasqutu yutraku illa li waajib as sunna it dee ko bàyyi as sunnatu laa tutraku illa li waajibin aw li sunna waaye as sunna laa tutraku li li mustahab comme sol lu rafet lu taaru eh, loola sunna la wala mustahab la te joxe muurum koor sunna su feddaliku la am ñu ne farata la kon lële moo gën a doon priorité moom la jox priorité mooy at yu inda zahabi li nga dox dem dem julli ji ca ca jullikaay ba ci koo xam ne dox ga du metti ci moom du xat ci moom fa mu dëkk mën naa dox kooka dox lu ñu sopp ci moom waaye bu ko mënut mën naa ko ñëwee wa nga jàng boo xëyee bul bu ma doon ñetti tàndarma moo ko mënta doon nga naan ndox bu ko mun te doon nga xool rek looy jëfandikoo balaa ngay dem eh, dem ca jullikaay ba juróom benneel ba mooy nga dem julli ji baada tulu shamsi balaa ngay dem jàkka ja xaaral ba jant ba fenk balaa ngay dem ca jullikaay ba xaaral ba jant ba fenk bul dem ci guddi gi lu dut koo xam ni fa mu dëkk dafa sori te day dox dem te ragal na ni bu naree xaar ba jant bi fenk mu dem waxtu julli ba dana ko raw kooku mën naa julli fajar rek kiite dal di ñëw mooy booy dem julli ji ngay takbiir di kàbbar sunu boroom takbiir ga it eh, sopp nañu ca bu ñuy dem kuy takbiir bu leen takbiir takbiiru mbooloo ku nekk na takbiiral boppam na kàbbaral boppam bu ngeen xasee yegg nag ba daje ca jàkka ja laa baasa mënees na faa takbiir takbiir jamaa yi ñépp di takbiirandoo loola mën naa nekk ca jàkk ca jullikaay ba e, ba mooy booy julli nga jullee cëb jullikaay ca musalla waaye nga bañ koo defee ci jàkka ja lu dut ni ngànt dafa am musalla ñàkk faa am wala am na waaye dañu nekk ci taw wala sedd bu metti lool wala xeeti ngànt yooyu boobaam sañees naa jullee mënees na koo jullee ca biir jàkka ja e, sopp nañu loola daa aju ci imaam jul ci lañ ca bis bi sopp nañ ca imaam jàng ci fatiha gannaaw fatiha mu jàng suratul ala ak suratul xaashiya wala suratul xaashiya loola it sopp nañ ko yeneen atte yi ci des yi ci yëpp dafay aju ci imaam te imaam a ko dàq def ñëpp ndax yàgg na koo def kon loolu nañ ko bàyyi ak imaam yi day ay yeneen yeneen ñu dul imaam eh, sib nañu it eh, naafila eh, ca jullikaay ba ci ko def lu dul def sa tahiyatul masjid bu dee ci musalla ba la sib nañu nga julli fa naafila yaa xam naa fi la gooy jiital la wala naa fi la gooy def gannaaw julli iit la yooyu yëpp dañ koo sib kon ci tënk yii moo doonoon yenn ci ñu tey attey euh, salaatul yi nga xam ne ay aadaab la yoo xam ni dañoo borom xam-xam yi dañ ko recommandé te mu aju ci salaatul iidayni li aju ci asakay murum koor it loola la ci tënkoon mu doon ay points yi nga xam ne ñoo ci gën a am solo te aju ci euh, tel fitr mooy la nag euh, ñu fàtte rek lenn ndax tënk gi euh, ci ñu ko war a jox surafaaw yi bokkuñu ci wooleem surafaaw yi kenn du leen jox zakaatul fitr ak lu ñu ñàkk ñàkk ñàkk kon defe naa bu soobee yi nañu xool ba xam ñoom danañ leen ko jox wala duñ leen ko jox kon lii mooy sonoon li ñu ci jataay bi Eh, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal leen ko waahiran wa wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim.